mbokk Samagal TV mbokk internet yi ñu ngi leen di nuyu leen leen wax ni ñu ngi ci capsule tabaski capsule tabaski tey nag maa ngi fii Castor euh, ma xool pharmacie Medoune Thiam de Chérif Khalifa Ababacar euh, fi ma toog nag euh, champion bi ma toogal dina présenté wu wax ma kan mooy euh, ñan ñooy waa bergerie Khalifa Ababacar Sy wax ma turam kilifa gi jaar naa maa lay ziare bu baax champion di la nuyu di la jox sa wàccuwaay bu baax di la ziara yaa ngi fii Castor ci bergerie xalifa Ababacar Sy nekk Castor ñu gën ko xam ci bergerie VSC mu nekk fii di def opération tabaski plus de vingt ans wala vingt cinq ans yaakaar naa xar bu ku ci dugg tey ñu bëri bu ñu demee ba am initiative opération si grâce à vieux sëy la parce que mag ñi fi nekkan ñuy suñu papa Pa Mansour góor gi Pa Ndiaga Pa Kifa Gueye père Kifa père Gora Diaw père Younous Thiès ñoom ñëpp xar yu mag yi nga xam ne moom lañu daan dajale ñu ci bëri bu ñu saa liggéey si maal yu bëri vieux lañu ko daan jaay voilà. vieux nga ni depuis vingt cinq ans kon saa veut dire que yàgg na ci xar est-ce que bergerie bi kon euh, moom dafa yàgg def opération avant bergerie taxaw wala. mais tey am na benn phénomène bi nekk ci élevage ñu koy wax Saalum Saalum mën naa ni maamam ci période bu période bu demee nii la ñëwee fii ñu koy wax saar di papa Birahim Saalum Saalum bu Luc Nicolaï maamam fii la soxi ko moo jur Birahim Birahim moo jur Algor Algor ci boppam moom moo jur moom moo jur Saalum Saalum mu nekk loo xam ne si fii champion bu nekk jóge na fi éleveur naa ne bu tabaski trois jours yi ñëw di recruter mâle parce que mâle yu mag yee gis fi yëpp bu tabaski jotee gars ku pare si seen tër doo xalaat kenn ku du VSA parce moom mën naa lan la def ba nga ni may ma ci tuuti lax nga ni fii la soxe ko Sarr dafa wàcc fi benn ngoon rek Pa Birame Ndiaye suuf pont daw ñëw ñëw ñëw ñëw waxaale si ko bi mu ñëwee mu dugal si ñetti xar yóbbu Sarr dem teg ko ci benn famelam ci opération tabaski mu jur Birame bi mu juree Birame mu jaay ko Pa Massoum Ba Pa Massoum Ba liggéey Birame ba pare jaay ko Aboukan Aboukan jël Birame liggéey ci ba am ci algoor algoor moo jur Saloum Saloum bi nga xam say moom moo lëmb élevage bi yëpp nii la demee Euh, am na ñoo xam ni ci xarum tabaski la ñuy ñëw ut si géniteur. si du jeex parce que maal yi am na ñoo xam dañuy pare ci maal bi buñ paree dañuy ñëw indi ko kasoor fii grand bi nga xam ne moom a daanu bërki démb suñu grand bergerie ndaw ay ñu leen di masaw bu baax papaam fii la wàcc bërki démb. moo daanu foofu. grand baabu bi papa ji fii la ñëw bërki démb ñu jox suñu benn xarit bu ñuy wax Badou Ndiaye DG di ko nuyu bu baax di ko ziara. grand Badou Ndiaye borom woon ku yàlla baaxal. non borom baax. mu nekk suñu client boo xam si nit ku fidèle la. ku sincère ku gëm boppam ku nekk jàmbur aussi vraiment a muy def social mënuñu toog sa di ko wax mais ñu ngi ko ñaan suñu borom mu kàttanal ko dooleel ko ba lépp lu mën ren bu dee mu mën lu ko raw. waa Reptel moom lañ woon seen foire bi mais rëccuwuñ ko. rëccuwuñ ko moom yendu këram mu defal ñu tiraanga yu dul jeex nag ñaana moom gunge ko ci bi bi foire bi jeex après ñu jaarat këram aussi biñ fa jógee tim vraiment boobu ba léegi mi ngi sàmmante ak ak ak ak ak ak ak yelleef yi nga xam ne moom la seex rek mel na ne xam na la xam na la xam na la 10 ans wala 15 si moom. tey euh, li man dama ñëw dama dama yëmb nan ngeen def ba def sélection bu toll nii ci ay ma defoon fii la yam njaga nga dugal ma ci biir kër gi ma fekkaat fa yeneen yeneen catégorie xar naka ngeen euh, accès fii ci niveau bi. mais ñi xam ñi xam Castor dëgg-dëgg bu ñu seenaan émission bi sax du leen jaaxal parce que fii. base xar bu mag fii lañ koy wax Castor léegi rek laay wax ak benn champion mag Papi Dieye ma koy nuyu bu baax au passage daf ma woo léegi di ma laaj ci xar yu mag yi xar bu mag bu ñu koy wax Castor moo tax opération tabaski nag ku ne mi ngi def opération tabaski mais opération tabaski fii mooy base bi parce que ñun xar bu mag yaakaar naa képp ku ko yor liggéey ji ba pare wallaay doo Castor rek ngay xalaat ci VSA parce que maal moom wax dëgg yàlla li mu ci ak ak ni mu ko bëggee ak ko suñu borom jagleele vraiment musuma gisuma benn éleveur bu koy def wax dëgg yàlla 25 mhm. ans Euh, kay moom e-, e-, exemple ci yan maal la liggéey lañu lañ am VSA e, yan maal la liggéey ak yan maal ngeen mës gis mu liggéey ko pare génne ko tabaski vie nag mën naa ni famille xari jigéen yi sax taxu taxu ko ci kii ah. mais vie embouche la gën a def muy maanaam jënd nag defar ko ba mu ba mu doy waar mu joxe ko wala dajale ay maal ba tabaski mu def comme ni mu def ni génn ci mbedd mi xam nga takk leen defar leen ba koo gis bëgg ko moom ci yooyu la gën a gën a gën a sukkandiku sax ka ay yar ay famille ak yu kenn xamul yooyu voilà moom moom wax dëgg yàlla maal maal maal yu mag yi la gën a liggéey ka ay famille ak yooyu moom tabaski daal moom affaire am la kon ça veut ma bëgg mooy yéen est-ce kon bu tabaski jotee lépp doo leen ko jënd dafa fekk yu bëri yoo xam ne yéen yar ngeen ko ci biir ba pare mais li gën a garaaw mooy ñun mu ñu tabaskee moom un mois boo ñëwee di nga fekk mbaar no 60 wala 70 ñu dàqante moom jëmaata moom tabaski bu ñu tabaskee ba moom 3 jours boo ñu jaayee xar ko waaw loolu moom yaakaar naa ñun rek ñoo ko ñemee bu ñu tabaskee ba moom 3 jours boo fi ñëwee boo ñu dee maal boo ñu jaayee ñu waxaale yow bu ñu jiboo ñu fay la loolu moom ñun dañ ko da takkaat jëmaat ak moom déwén aussi loolu moom ah métti na trop ba pare xoon dafa métti ñun ñi ngi dépassé presque 360 000 par jour billaahi te gisuñu ministre gisuñu état gisuñu kenn suñu propre moyen la ñuy demee sérieusement damaa am na ñu bëri li leen jaaxal boo xam ne di Castor ay xaru nekk mais may la ma ma ma koy leeral rek am nañ catégorie boo xalaat am nañ deux deux cent cinquante mille trois cent cinquante mille quatre cent mille quatre cent cinquante cinq cent cinq cent cinquante six cent ba un million ba deux millions am na kastoor lu waaye am boo ñëwee di am xar loolu moom leer na. Mhm. tey euh, bâche bi fii yi ma fi gis euh, yan catégorie ñoo fi nekk. waaw fii nag xar yu mag yi ñoo fi nekk à part de sept cent cinquante six cent jëm un million ci kaw mhm, mhm. waaw. léegi tey euh, ah, après année yooyu ngeen def yëpp ci tabaski tey ñu gis ni tabaski bi dafa xaw am problème de xont yow ban remarque nga def ak ban seetlu nga def par rapport ak tabaski nga wees waaw ma xamante ni aliment bi abukan mi ngi wax barki dem ñu nga ñoo ko seeral parce que mënoo dem jënd benn saak aliment 9000 gën di ko jaay 14000 wala 15000 loolu jaaduwul ñu lancé appel ministre bi mu gestu élevage bu baax a baax a baax a baax dox ci tànk bi parce que nit bu ñu la dénkee mbir da nga war di saytu di ko xool di ci dox di ci wax ñun benn ministre lañ mos a gis fi muy Aminata Mbengue Ndiaye te Gaston Mbengue moo ñëw fi benn ngoon rek dugg ci biir comme ni nga def ni rek mu ñëw am woo ko ni ko gis naa lu ma musul gis ci àdduna bi mag a may 3 de mais fii moom ku fi dugg wax ku Aminata Mbengue Ndiaye képp ku bokk ci nguur gi bu duggee fii génn dina am lu mu def waaw ah, mais loolu loolu nag loolu nag loolu la ñuy xaar si ñoom nañu ñëw kaso ñu jàppale ñu nañu ñëw ñu jàppale ñu ñun bu ñu jàppalee lu ñu bëgg a liggéey ci wàllu viande wallaahi mën nañ ko parce que am nañ espace am nañ amour bi bëgg nañ ko tam mën nañ ko tax lu ñu xamle na ko si vraiment jur ñun bu ñu la joxee nag boo renne da ngay kontaan bu ñu la joxee xarum tabaski boo ko renne da ngay kontaan parce que dañuy kont nag yi nag nag yi nag yi ma gis tamit ay nag yi ñaata ton ngay def yéen ñun dañuy dem jënd benn nag fekk ko mu nekk karkaas ñu ñëw dañ koy embouche ba mat ay une tonne wala une tonne cinq cent waaw mos nañ jaay Cheikh Béthio benn nag su ma jumul bi mu ko rene mu def 41 boolu yàpp jour boobu bi mu jeexee ana bi jeex moom mu ñëwal boppam ba fii bu mu ñëwee bi mu gisee nag yi ndeysaan dafa kontaan xolam sedd guy ñu ko ñaan suñu borom mu yokki leeram bu baax te taas ñu ci barkeem ñoom vraiment ñëw nañ sax ñoom itam cataaku ni jënd fi ay xar bu baax suñu borom seen taxawaay wéral baax a baax a baax mais tabaski daal suñu yëf la on est à presque 4 jours de la tabaski ngeen toll est-ce que xar yi ñu ngi dem am na yu des wala. si xar yaa ngi dem xar yaa ngi dem mais am na ay quelques yu des nag vraiment fi ñu toll dañu nekk ci ci phase ne mooy livrer xar yi xam nga di xool yi ñu mën a wàññi leen ñu dem am na ci client yoo xam dañuy téye seen xar ba ñu subalee tabaski ci guddi mais loolu day metti dañu bëgg nag ñun bu ñu nee subal tabaski midi boo ñëwee fekk fii set wecc ñu teg suñu baas bale fi nga xam ne si maire bi moo ñu ko jox ñu leen di di leen sant di leen gërëm defaraat ko ba mu mel ni mu melaata ñu delloo leen ko di baalu ak yëpp nag di leen nuyu bu baax di leen ziara que lii vraiment ñu ngi leen di dérangé xam nga àq bi métti na trop mais ñu leen di jégalu bu baax xam ni benn un mois la leen di masawu bu baax baax a baax di leen ziara di leen wax daal fii rek la fii Castor. Ah, kon eh, gis ngeen mbokk Samagal TV en tout cas lii lu am solo la parce que tey fii lu fi gis si ay maal man bon def eh, ñëw dafa ne fii la box bi yem ne peut-être mën na mën na mën na 400 moutons wala 500 moutons ci biir loolu liggéey la quoi. kon Ndiaga lan mooy sa tëj ak lan ngay wax éleveurs yëpp yox yow moo xam naa ci élevage sax euh, yàgg nga ci yàgg nañ daje fu nekk tey la ngay wax gars waaw di leen waat bu baax rek di baalu ak ñëpp xam di tàllal ñëpp loxo di leen ñaanal te di leen ziar di leen jégalu maanaam sàmm yooyu bi nga doon wax sax moo nekk ni di gaare muy DG Badou Ndiaye di ko nuyu bu baax di ko ziar sama patron sama xarit sama kilifa di ko ñaan suñ borom mu sàmm ko bu baax a baax a baax baax a baax di nuyu suñu papa aussi Vieux Seye di ñaan suñu borom mu kàttanal ko dooleel ko vraiment Vieux bu fi yàggee lu fu fi yàgg rek doyul. xam ne xaarul kenn si dara wallahi ay propre moyen lay demee. ay propre moyen lay demee ñu koy ñaan suñu borom mu kàttanal ko dooleel ko di nuyu Moustapha Cheikh Ben di nuyu staff bi yëpp nuyu technique bi ne ci biir ñoom Abdou njaay Fallou sëñ Modou Assane di nuyu gars di nuyu suñu papa Père Amar di ziar ñoom Maodo xale yi fi nekk ñoom Baba bu yooyu ñu ngi leen di nuyu ñëpp di leen baal wax te di leen baal wax di ñaan suñu borom mu yóbbu ñu fekk at yu bëree bëree bëri bëri fii suñu jotaay bii yàlla bu mu nekk suñ bu jënteelu gisante yàlla suñu borom yeesalaat beneen ci diggante bi incha allahu rabbi kontaan nañ bu baax ñu ngi lay nuyu di la ziar di la jox sa wàccuwaay bu baax a baax a baax di la wax ni sa liggéey ñu ngi koy seetaan bu baax ñu ngi defal la nga gën a yokk ci kanam kanam dem ba am sa télé muy xat ren yàlla dogal ko mais ma ñëw aussi kontaan ah mhm. dafa dafa neex quoi euh, lii parce que man dama bëgg sàmm te li ma gis nii fii c'est très joli njaga mais tey la ko yàlla dogal tey la ko yàlla dogal gis nga ba ba maay naa la jaaral mais ba léegi ba léegi mënoo ko mais gis nga bi ko yàlla dogalee bi ko suñu borom dogalee daa yomb dafa yomb gis nga dama rek mu yomb dafa yomb mais fii sa kër la ubbil nañ la bunt yëpp boo paree mën nañ def yeneen jotaay incha allah bu yi jàllee bu li jàlle booy ñëw ñu toog def yeneen i jotaay incha allahu rabbi euh, numéro bi ku soxla fii dara ak ku bëgg bu fekkee da nga fi bëgg a ñëw mën ngaa woote ci 77 202 96 17 wala mu woote ci 510 02 10 fii mooy Castor bergerie Khalifa Ababacar Sy fii rek fii dong la mburum yi xoom-xoome